ne soog a ci direct bi ñu leen di fàttali ne ñu ngi fii ci conseil constitutionnel ginnaaw recours yi nga xam ne ñenn ci parti politique yi defoon nañu ko ku ci mel ni Déthié Fall di mandataire coalition Yewwi Askan Wi Babacar mbeng di mandataire coalition Gëm Sa Bopp lu ñu bëggoon nag ci premier ponk bi mooy rek ñu daal di déclarer irrecevable benn Bokk Yaakaar listam bi ndax jàpp nañu ne la wax ci parrainage loolee dañu ko ëppal ci recevabilité recours boobu itam gis nañu euh, ñi nga xam ne ñooy conseil constitutionnel daal nañuy àddu ci euh, boobule wàll la ca euh, décider rek moom mooy dafa irrecevable recours yi nga xam ne Babacar mbeng nekk électeur di agir pour mandataire coalition gëm sa bopp waaye itam ci décision boobu nga xam ne wax nañu ne nañu ko publier ci journal officiel du de la République du Sénégal ba tey ci décision yi ci lañ ñuy ñëw ak yéen ndax li ñu waxoon ne euh, lu jëm ci euh, euh, càkkuteefu coalition boobu la di gëm sa bopp bokkoon na ci rek ba ñu saisiree conseil constitutionnel moo ñu annulé benn décision boo xam ne mu ngi woon ci numéro double zéro soixante soixante-douze bu 17 mai bi nga xam ne nag ministère bi yore wàllum élection yi moo ko jëloon waaye ah tam ñu annulé arrêté numéro 0040 euh, 71 bu 3 mars bi nga xam ne it ba tey euh, ministre bu yor wàllum élection yi moom moo ko euh, jëloon loole itam ñi nga xam ne conseil constitutionnel daal di nañu ci addu li ñu ciy décidé rek mooy conseil constitutionnel séance bi nga xam ne def na ko ci 21 mai ci atum 2022 daal di nañuy addu ci loolu ne loolu itam munut a nekk décision yi nekk na décision yu bari ginnaaw recours yi nga xam ne itam ni moo leen ko waxee woon léegi rek euh, daal dinañu ko woon euh, def euh, fii ci conseil Euh, constitutionnel ñuy wax nag lu jëm ci liste yeewu askan wi fii ci ndakaaru euh, loolee wax nañu ne mën nañ leen a bàyyi euh, ñu daal di rek def li nga xam ne moom mooy rectification wax nañu ne dañoo respecté wul woon liste paritaire bi donc dinañu mën a changé jël ku góor ka fa tegoon dindi ko remplacer ko par kenn ku jigéen ba tey rek ci yi nga xam ne moom mooy décision yooyu ñu ñëw ci ak yenn ndax. ci ci ci li nga xam ne sàkkuteefu mandataire bi di euh, mbay Ngom nekk mandataire de la grande coalition ànd ndawle li nga xam ne tamit euh, loole ñii di conseil constitutionnel daal dinañu koy décider mooy requête coalition ànd ndawle bi dañu ko rejeté ci article premier bi waaye ci article deux tamit wax nañu ne boobu la décision dinañu ko publier ci journal officiel de la République du euh, Sénégal Madame Sagar Diouf nekk mandataire ànd jëf jëfal Sénégal ñoom tamit daal nañu waxoon ne ci sàkkuteef bu ñu defoon ci conseil constitutionnel waxoon nañu rek ne lu jëm ci boobule coalition matlewuñu nombre de parrainage ba ñu leen euh, laajoon muy mille cinq cent quatre 580 électeurs en chiffre euh, ba ñu gisee ne nag matul ñoom it euh, daal di nañu wax ne loole motif bi ñu jël ngir neenal seen parrainage teguñu ko ci yoon taxoon ñu daal di ñoom ñëw andi décision bi fii ci conseil euh, constitutionnel waaye itam lañ ca décidé rek mooy requête bi nga xam ni ànd jëf-jëfal Sénégal Nasrou loolee tamit daal di nañu koy euh, rejeté monsieur Abdoulaye Thiam Guissé di mandataire alliance pour la société des citoyens œuvrant pour le euh, Sénégal di ASCOSEN ñoom it daal di nañu saisir conseil constitutionnel. ngir recours contre rejet dossier de candidature bi nga xam ne defoon nañu ko muy force ouvrière yooyu ci élection législative yi loolu it ba conseil constitutionnel décidé rek ci article premier nee na recours ba monsieur Abdoulaye Thiam Guissé di mandataire national ASCO Sen force ouvrière loolu it daal nañu koy rejeté te it boobu le rejet nañu ko publié ci journal officiel bu Sénégal monsieur Mouhamed Ahmadou Lamine Thiam di mandataire coalition Defar sa gox ñoom it daal dinañu saisir un conseil constitutionnel décision rejet euh, seen déclaration candidature coalition defar sa gox boobu le euh, ci recevabilité bi conseil constitutionnel àddina ci waaye ci li nga xam ne itam loolee rek la daal di jël euh, comme décision muy recours bi nga xam ne ànd defar sa gox daal dinañu koy rejeté loolee la ñu mën a jàpp rek ci li nga xam ne moom mooy conseil constitutionnel di wax ne nag lu jëm ci listu benn bokk yaakaar boobule Euh, wax nañu ne dina bokk ndax ci càkkuteefu waaye Yewwi Askan Wi la woon ngir ñu daal di annuler euh, li nga xam ne euh, moom mooy seen bokk ci élection yi ndax jàpp nañu lu jëm ci list wala nombre de parrain yi nga xam ne moom lañ leen demandé woon loolee def dañu ko ëppal Euh, taxoon ñu saisir conseil constitutionnel ci ñaari ponk yooyu waaye saisir ko tamit ngir rek seen liste bi nga xoon waxoon au niveau national dañu koy annulé ñu daal di koy defaraat loolee mel na nag conseil constitutionnel daal dina ci addu ñuy wax ne liste national bu yeewee askan wi fii ci euh, Ndakaaru euh, dina bokk ci élection législative yi nga xam ne moom la ñu amal décision boobu daal la ñu amagum fii ci conseil constitutionnel waaye ñuy xaarandi ñi nga xam ne ñoom ñooy mandataires yi ndax dinañu ñëw fii nga xam ne mooy conséquence ngir mën a am seen ay réaction